invité King Saliou c'est le parieur le plus suivi sur euh, sur la mais aussi bokk na ci ndaanaan yi nga xam ne dañu koy bàyyi xel bu baax a baax parce que liggéeyam bi muy def sénégalais yi ñu ngi koy bàyyi xel bu baax rawatina ni ko artistes yi ak ñi nekk ci showbiz bi di bàyyi xel King Saliou euh, ñu ngi am mbégte bu baax di la wax joyeux anniversaire dundal téeméer yi at yu toftal téeméer te tàmbali tey ndax Baye Fall bi bi ma gisee euh, sa mbokk yi ñëw tey teew ma xam ni amal nga njëriñ sa gox maa ngi lay nuyu di la wax joyeux anniversaire King Saliou gën leen ko maa leen gën a kontaan aussi quoi vraiment parce que lii yombul quoi nga woote ñu ñëwal la quoi comprendre mais comme li nga wax rek moom moom nit moom amul lu dul say nit quoi voilà moo taxoon tey man a xaar ma féete ko donc woo nitu démb ak voilà ñi ma xamante ne tey donc bu ko defee ñu féetandoo ko quoi comprendre nga donc loolu la quoi. kan mooy King Saliou véritablement pour sénégalais yi xam fu King Saliou bu jugee euh, fan la King Saliou soqee ba tey doon tey King Saliou bi mu doon. waaw king bi moom nekkul loo xamante ni que genre dama ko jël di ko woowee sama bopp dafa nekk loo xamante ni que genre lu ñëw naturel la quoi loo xamante ni que du man maa ko tuddee sama bopp ko tuddee quoi que dafa am si domaine bu may yëngu donc ma siy def loo xamante ni que nit yi dañ siy gis seen bopp voilà ñoom ñoo xëy donc mu nekkoon benn groupe WhatsApp bu ma tijji woon ñu bind si groupe bi genre man Salo rek laa si bindoon en fait ñoom ñu dindi Salo bi def si King Salo donc ma pour pourquoi pas comme ñoom ñoo ko defal seen bopp ñoom ñoo def ba ñoom ñoo dem genre ba sentir ni que voilà war nañ ma woowee King ñu woowee ko ma ne pourquoi pas ma nangu ko après voilà mu nekk lu law waaw ba tey ku nekk di ma woowee mooy jaar jaaru King Saliou fan nga soqeekoo fan nga dëkk fan mooy sa base ak lan nga fa dund loo jot a jaar si sa cursus scolaire Saliou jàng na wala Saliou ci lan la doon yëngu avant muy doon tey Saliou bi mu doon. waaw. Salut je suis ngi jeune boo xam que Grand Yoff la dëkk euh, fa laa aussi tamit parce que euh, nous ma am wala Grand Yoff quoi donc euh, voilà jaar voilà si si si si si fu en fait comprends quoi jaar n'a fu metti jaar n'a fu voilà comme comme comme koy quoi mais bon toujours les ma sama

Euh, ñu may ma benn deux 200 ma demaat si keneen mu dugg may ma benn trois 300 noonu ma mën a am benn 700. après voilà ma dem xëy donc 700 yooyu moom laay ndekkee 3 jours wala 4 jours voilà mais amoon benn gëm-gëm rek mooy ak nu mu mënti demee xam nga dama gëm ne man damay am man moom loolu dama ko gëm quoi loolu mooy sama gëm-gëm voilà mais tamit tekk mais tamit dama koy teg si lu leer quoi. loo xam te ni que tey fu ma neex mën naa fa def sama xaalis fu ma lu ma neex mën naa def te kenn du ne ma lu tax nga def lii wala lu tax nga def laa man noonu laa mel quoi c'est comme ça. Serigne foo xam ni euh, banlieue la te ku xam banlieue xam ni euh, quartier la bu xaw a bu xaw a doy nga doon fa jeune tuxoo naanoo sàccoo euh, defoo lu bon fexe ba tekki doon jeune loolu yombul tentative yi nekk ci banlieue bi naka nga def ba ba ba moytu ko duggoo ci. waaw mais xam nga man moom mun naa wax ni que ak nu mu ti demee comme li ma la wax sànq rek samay jaar-jaar. donc euh, sama mère dafa jaar si samay jaar-jaar lu bari lu rëy muy sama yaay moom rek laa am donc euh, aw ma la ko sut bëgguma kenn ku dul moom moom rek laa bëgg kooku laa jël sama xol bi def ko si euh, lépp lu ma am si àdduna moom moo ko gënal lépp lu may man naa di noppale parce que man dara sonaloo ma en fait boo fekkee si si si samay morom wala nga fekk ma si samay xarit donc munoo xam ki am ak ku amul parce que li ñuy comporté laay comporté amaana sax man maa leen gën a clim maa leen gën sol loo xam te ne genre voilà mais jaar-jaar bi ak li meer daj ci man donc moo taxoon ma ne man mënu ma def lu dul normal mënu def lu dul jub mënu def lu dul nekk nit koo xam te ni ki genre voilà day tegu si lu leer voilà après lu am ñoo xam ne loolu la yàlla dogal mais comme li ma la doon wax rek man benn gëm-gëm laa am mooy damay am noo dundee sa koñ nga doon ndaw yàlla dénk la teraanga nga euh, comme ni ko sénégalais di wax Saliou c'est un jeune millionnaire nga nekk Grand Yoff yàlla dénk la teraanga Eh, du ñak dina am ay nyak, dina ñak dina am ñu la bëgg xagn parce que ndaw yor alal koku suñu borom rek mo la mëna sam nga mucc donc nak ngay dundé eh, sa bir dekk sa gox ak teranga bi la yalla denk wa comme comme comme comme limay wax sama gaay yi chaque jour rek xam nga yalla dafa dogal ma andak ak ñoo xam te ne xarit yo xam genre ñu am compréhension lañ quoi donc xam nañ ki ñi andal xam nañ man may kan parce que lepp lu may def rek man fay fekk ma gëm ko voilà mu nekk lo xamanteni lu naturel la ci man man duma forcer comprendre nga man lepp lu may dund ak nit rek dafay nekk loo xam te que genre lu leer la quoi donc ñom comprendre nañ ma xam nañ man may kan donc voilà man pour man genre amna yenn yoo genre ñom duñ ko xalaat ci man quoi peut-être kuma xamul mo koy xalaat ci man nan diw ni la mel wala ne la mel ak yoy non genre dina metti nak parce que boy yoree xaalis Euh, léppay changé léppay changé mooy genre li nga doon dund dootoo ko dund façon nit yu nekk lay feeñu comprendre nga surtout nga nekk jeune dina am ñu la bëgg dina am ñu la bëggul dina am ñoo xam ne que xaalis ma leen tax a jug ku si nekk ak li nga lii quoi mais man moom maay nit boo xam te ni ak nit boo mënti doon koo mënti doon lu la tax a jug euh, lépp mën naa ko xam mais day mel ne xamuma dara man noonu laa mel nga bëgg ma nga bañ ma nga bëggee ma alis nga bëggee ma lii nga toppee ma lii nga toppee ma laa lu mënti doon genre Euh, lolu mën ti indi si man man dama lay considérer ko xam te que genre da nga ma bëgg parce que man non la mel mën munu ma bañ nit munu ma beddi nit xam nga munu ma jël nit taf ko fële muy xarit ak ku mu ti doon man képp ku ñëw rek manam la fekk nga bayé nit nga ñëw ci man rek dama lay taf si sama wét voilà man non la mel quoi. d'accord Saliou c'est un millionnaire lolu sénégalais yi ñoo ko wax da nga koy dëggal ou pas. waaw ma ngi sante yalla <laughs> ah, daal maa ngi sant yàlla. ah en tout cas dal ma ngi sante yalla mais naka nga gis naka nga gisee euh, liggéey bi ngay liggéey nga koy dugal ci réseau yi par exemple yenn saa ñu gis Saly mu yor une vingtaine de millions wala benn benn vingt sept millions wane ko ci réseaux sociaux yi euh, loolu jàpp nga ni cat mënu la ci topp parce que si Afrique nekk rawatina Sénégal. waaw xam nga damay yëngu si wàllu pari sportif te defe naa genre su mu nekk premier nit buñ ci gën a ràññee dinaa nekk deuxième nit buñ ci gën a ràññee amaana sax euh, mën naa nekk première mais du jar may may may nekk di wax quoi mais genre.

amul dara lu may def di si calcule beneen doomu aadama man noonu laa mel lépp lu may def rek dama koy def parce que dama am envie def ko xooluma si lu neex kii wala lu neex kii na ma neex rek ma def ko ma noon laa mel. donc loolu waral may parfois may génne xaalis pour ñu xam ne kii mooy diw dafay gagné et tout jeex na mais bu weesoo loolu ma si leneen quoi. am na pas yu mag jiitu la ci li ngay def mais il na n'arrive pas à s'en sortir maanaam doon ci tey ay millionnaire wala milliardaire euh, comment ça lui fait ba ba doon number one ci ni mu doon en étant jeune. ba pare am ci talent di ci di ci am ay millions et des millions euh, loolu lan la Saliou talent la war a da dem jàng ji affaire bi waaw dama fi jaar dama dama dama si yàgg nag dama dama yàgg si Paris sportif mën naa ne que mën naa mën naa ne que genre dem depuis depuis depuis ay 2013 ma jaar si fu nekk jënd si téléphone jaay ko euh, jënd si télé jaay ko jënd si ay dàll jaay ko dàll sax jaay naa ko mille pour jouer comprendre nga donc jaar si fu nekk euh, genre mun naax nekk maanaam xoslu naa si mais tamit dundal na ma ay bànneex yoo xam te ni que genre euh, donc mënu ko wax en fait mais secret Saliou lenn kese la mooy ndimbalu yàlla ànd ak coono donc yàlla moom ma suturaal euh, ma am si sens lépp lu ma gée mu normal te waxuma la man mais ñi nga xam te ni que dañ may suivre dañ ciy gis seen bopp lolu mom amul demal ma ñew parce que samay coupon amna na ñu muy tax ñu fay ay location amna na ñuy tax ñuy jël ñu ñuy joxé ay dépêche donc bëri na bëri na bëri na quoi soxla yi bëri na. te à propos ak lolu genre taxna tay ma ngi dimbale ay nit yu nekk yo xam te ne genre du jaar muy fës quoi mais mënu tok man ben 2 jours wala 3 jours bo xam te ne dégguma problème bo xam te ne dama koy fajj c'est impossible lolu yépp grâce à Paris Sportif quoi. donc voilà chance la rek. lan bi bi gëna ndaw nga gagné ko ne oh bii somme bu ndaw la. waa nag problème bi mooy man moom bu dee bu njëkk. waaw doon naa doon naa doon naa doon naa doon naa doon naa doon loolu doon na ma dal mais pour l'instant nii genre mënu ma jouer loo xam te par exemple euh, daf may fay somme bu ndaw parce que dama koy xeeb. dama koy xeeb su may gañee lu bari laay gagné mais su may perte tamit lu bëri laay perte. somme bi gën a mag nekk au plafond. wa ma la seetaan nga ne ma xaw ma 27 xaw ma nanga non non romb naa loolu son bi gën a mag s'il te plaît ma wa romb naa loolu wax dëgg si yàlla bu wax dëgg rek ma neex yàlla ah cent cent non romb naa loolu non non loolu moom du nekk loo xam te ne ki sax damay taxaw di wax soo duggee si sama lu ko ëpp sax gañ naa ko semaine bi ñu génn rek gañ naa plus de 467 millions mais loolu ay mais ni koy gañee noonu ngay perte gañ perte ñoo ànd fait man moom gis naa loolu genre par exemple dafa tax manam man mënuma gis Luma jaaxal ci xaalis manam nit nu mënti mel lu mënti yore bu don ay milliards sax gondiwu ma parce que dama jàpp ne du dara xaalis du dara nit yi ñoo def problème rek mais du dara nit yoo koy réer rek man xaalis jàppee ma ko muy dara du dara. mais salut, euh, ñu ñew nak sa relation ak artiste yi récemment y a une vidéo qui fait fureur sur la toile moy bi nga demee ci Wali. man ma jàpp ni Wally def la soññ xaw ma ndax dégg nga wax ci ou pas Wally def na la saaliw loo mën a am dimbali sa yaay balaa muy wees rakk jeey saaliw noo déggee wax jooju yow. waaw loolu dafa nekk wax boo xam te ni ko wax bu ma kontaan la wax boo xam te ni que genre euh, tax na ma jàpp ko te mën naa wax ne que soirée yu ma ko ensonnel di dem moom loolu moo tax. way boobu waa boobu. parce que genre ba mu may woy sax woyul sama yaay mais man maa dem ba si moom. ne ko waale mu ne mën na ma ne ko ma sama yaay parce que man aw ma lu dul sama yaay man man soxlawuma ko ma waay man soxlawuma siiw siiw amuluma benn njariñ comprendre nga mais man maay bëgg di def loo xam te ne que chaque jour sama yaay day xam ne kii kat ku ko bëgg la comprendre nga lépp loo xam te ne que tey su ma ko lépp lu ma def sama bopp rek ni ma ko defee war na sedd xool sama yaay rek dama koy def man noonu laa mel je comme ça voilà relation ak Sali euh, Wally Seck naka la naka la demee parce que Wally du n'importe qui rawatina jeune mooy yëg ci kaw seenam ba koy may xaalis waaw

parce que man dama dama laxtu won ba mu ëpp mais xeyna euh lu yalla dogaloon dafa wara am mu am et tout ça lool la mais nekkutoon lo xamante ni que man sama dund la woon. parce que lepp boko xolé ci at biñu ñu ak at bi la lepp jëm ji na Sibiru fay mom motax moo tax ma ma ko en fait. parce que moo ma si poussé xam nga moo ma wan xam nga genre buma ma tay tey bay ba ba mën ne que ñu bari xam grâce à mom la quoi vraiment wa maa nekk ak relation ak bébé Binta. non bàyyil wax yooyu. <laughs> seen benn vidéo. non non bàyyil wax yooyu kooku du ma wax si waxam quoi parce que gis nañ anniversaire am am ku ko indil bague ñëpp di def hashtag Saliou la ñi naan moo ko yónni anniversaire am cadeau yooyu. donc yow jot na tey nga teggi tuuma ne du man sénégalais xam ne du yow. non du ma wax si kooku man ki may ki may gis nañ ko. donc sànq bañ may souhaité gis nañ ko wala mais mënu ma wax si kooku vraiment. lan nga defal sa yaay ci ci ci sa alal. rek sa xol sedd si yóbbu màkka euh, ak tabaxal kër wala jëndal ko oto euh, lan nga defal sa yaay nga xam ni tey jii sa yaay kontaan waa sama yaay moom bu dee lu ma ko defal pour mu kontaan moom loolu moom su ma koy lem genre du ma fi jógee parce que chaque jour mu wan ma ni que maanaam xolam mi ngi sedd si man waaye kanta lu ma ko defal ba xolam sedd donc su ma nee dama koy wax moom wax dëgg si yàlla damay wax lu ma neex parce que li ma ko bëgg defal dëgg-dëgg defalu guma ko ko comprendre nga guma si sama yaay lu wara meuna tax mané defal naa ko sama xol meuna a parce que genre desna desna pour man su muy yëkkati won 1 milliard jox ko sax desna desna sama yaay lepp lu def ci mom rek defuma dara li des mo upp parce que aw ko dul mom man sama yaay la am sax est-ce que yaangi yaangi ci khalat ci investir taxawal ay entreprise jël ci domi rew mi ñu liggéey parce que ci li nga nek ni ñaan nga yalla genn ci nekkat ci yenen domaine est-ce que yaangi baye xel lolu

dama leen waxoon ni que man ak nu muy ti demee man damay tekk si pari foot maanaam dama siy gagné moom xaalis moom dama ko si am loolu moom dafa nekk loo xam ne genre lu ma lu ma yàgg gëm la. c'est secret. bëri ñu ngi joué mais mel nuñ Saliou doonuñ ci millionnaire. waaw yàlla la rek xam ma ndimbalu yàlla ànd ak coono comme ni ma la ko waxee mais au moins li ma mën maa ngi koy def li ma mën mooy maa ngi jël li la xam te ni que moom laay gagné di ko dugal si telegram donc euh, ñi la xam te ni que tey ñëpp ñu ngi may suivre ñi nekk sama telegram ñëpp mën naa wax ne que tey li may gagné ñu ngi koy gagné parce que lépp lu ma joué avant match di taw dama koy dugal su ma ko dugalee ñoom dañ koy gis lu si ku si nekk li sa wërsëg nekk nga lekk parfois comme semaine bi ñu passé maa ngi dugal benn code teg si man 2 millions may gis nit boo xam te ni que teg na si 900000 presque gagné na plus de 3 millions 600 am na ay moromam yoo xam te ni que tey bëgg nañ ma ko def mais xamuñu fu ñu may envoyé message bi may wane ni que kaan kontaan nañ ci man quoi. donc mooy moo tax ma ne la genre affaire moom genre bëgg-bëgg lu ma amoon gëmoon na dama si am dara après yàlla fekk si ma si après maa ngi sant yàlla quoi vraiment. am na projet yi. waa ñu ñoo ngi si daal ñoo ngi si parce que. parce yii la topp euh, toppee wuñu la toppee wuñu la neen war nga taxawal dara loo xam ne ñoom dañ ciy yëngu. waaw comme comme comme comme comme comme li may wax chaque jour rek ñun man man sax laa xam naa fi ma jugee maa ngi lay expliquer sànq ni que pour ma pour ma pour ma pour ma ndekki woon su ma doon dem atelier dama doon jaar marché Castor euh, ñooñu ñooñu di dugg ma jël téyel leen seen bagage yi ñu fay may 200 ñu fay may 300 ma dajale loolu pour mën si ndégu pour mën si ndekki ay yeneen jour donc foofu ma jaar ak li ma gis fi sama yaay daj foo xamante ni que genre. su ma jëloon tisi jàmbur war ko ñëw ñëw ma ko nit ki ñëw na ma fay ko tisi yam ndax pare pare pare pare pare sportif genre sama yaay ni mu si doon sonnee pour fay bor yooyu noonu xam nga donc du ma nangu delluwaat foofu vraiment. Euh, yéen ñi may laajte par exemple ndax maa ngi investir wala maa ngi dugal sama xaalis foo xam te exemple mën na ma jural xaalis man dama leen di comprendre parce que loolu mooy wane ni que maanaam am nga loo leen ma bëggal te am nga foo leen xamante ni tey genre ma yegg fa am nga leen ma dem fa. donc euh, maa ngi calcule loolu bu baax chaque jour loolu mang koy def sama bop parce que genre xaalis neex na neex bo xam ko bis boko yorul si ngay xam njariñam donc ak fi ma tolu ni am ay nit yo xam te ni que tey dañoo yaakaar si man même bu dee deux personnes donc man dina def lepp lu ma mën ba ñooñu ñooñu chaque jour seeni soxlu bu ñuy ñëw diko fekk si man donc investir mënul ñak lan mooy sa dépense quotidienne boo xëyee ñaata ngay génne li moy mooy dépense su for naa ci wéyu ba yow 5 millions ngay dépassé yow. non loolu ay wax la rek <laughs> ay na de non loolu non loolu gaari gaari ñi. 5 millions ngay dépassé yoo xam ni ay yu sew la. non gaar ñi tooñ rek. ñaata ngay dépassé waaw man moom wax dëgg si xaw ma vraiment mais daal genre su ma xëyee dinaa génne lu ma war a génne xam lu suga lu nekk fu mu war a ma dugg fa mais genre du nekk di calcul ay lii laay génne par jour wala lii wala laa non man lu ñëw rek lu war a génne dama xam ne dafa war a génn ma génn ko après bu jaaxee jeex na ko. Wah, no. xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga nit boo xam ne genre da nga nekk si réseau bi di dem si soirée yi ku nekk di la gis mooy li mu lax rek façon nit bu nekk di ko gis waaye man maay nit boo xam te kii nit mënu ma dugal si lu ma bëggul nit mënu ma def loolu ma bëggul lépp lu ma def rek dafa fekk ma comprendre donc euh, nit bëgg dugg si man taxul mu dugg man comprendre voilà mi ngi noonu quoi donc euh, jigéen ñi ñu ngi ñëw dëgg la mais genre nekkul loo xam te ni que tey lu nekk sama bopp la parce que ñoom ñëpp bu ñu ñëwee tamit aussi taxul ñu am lu ñu bëgg waaw xaritoo lañ mën a yem wala bu weesoo loolu jeex na quoi. merci kontaan naa. joyeux merci beaucoup mon ok.